ko gis nga yent yalla musa ni ko dafa febar rombu ñax ga ñax ga ni ko boo ma ma wër mu re dem ba fa mu daan sukk mu sukk fa ni yàlla dama feebar faj ma yàlla ni ko am na ñax goo xam ni boo ko baxalee naan ko wér mu ni ko ban ñax la mu tudd ko ñax ga doon wax ak moom mu dem jël ñax ga baxal ko naan ko feebar ba yokku mu dellu fa mu sukkoon sukkaat fa ni yàlla feebar bi yokk na mu ni ko ndax docteur am na ci dëkk bi mu ni ko waaw mu ni ko demal seeti ko mu dem seeti docteur ba docteur ba seet yaram wi digal ko ñax dem jël ñax ga baxal ko naan ko wér yàlla ni ko gis nga bi nga feebaragul sama kattan laa doon wone ci mën a uuf njaboot bi nga feebaragul feebaree sama kattan kàttan laa doon wone ci mëna a not njaboot ko bi nga demee ci doktoor bi mu wax la nga naan wir sama xereñ laa doon wone ci samp pénc bu doon ku ñaan yàlla wér lu docteur yi defati ci kaw suuf